àddina te nit ñi duñu xam euh, parce que Sénégal ñoo nekk nit koo xam ni dañ lay xas da nga sëy tas lu tax nga sëy tas li lay njëkk a xasee mooy say goro bëgguñu la say njëkke bëgguñu la say dara bëgguñu la sëy même boo ci toogee bu la goro bëggul njëkke bëgg la sa jëkkër soutenir la mën ngaa sëy ndax xam nga lu tax base bi jëkkër la base bi jëkkër la te li may wax dama koy wax ak goro yi xam nga lu may wax goro yi mooy lan mooy dama ne ngeen jàppale nit ki bàyyi këram bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi lépp ñëw dëkkal si sa doom mais da ngay gis goro boo xam ni tey jëkkër euh, sa jëkkër day jote ak yow ñu ñëw taxaw ànd ak seen doom nga bàyyi lépp ànd ak say doom te tey ba ngay bàyyi lépp di dem tey ñëpp a la toppoon dama koy xool man ci sama bopp man bi may sëyi àddunaa ma bëggoon barke Serigne Fallou Mbacke man bi may am jëkkër Sénégal ñoom bëgg sa mbàjjan xam nga la la ma doon wax maam Ndiaye ma ne ko ah mu ne ma taxawal nga xool seetu ma jëkk rafet mel nu ma neex nekk xale rafet ñëpp bëgg ma barke arxuraanu ñëpp bëgg sa mbàjjan bi may may xam nga la ma wax yàqamti nga de toogal nga xool seetu nga xool sa bopp ni nga rafetee ak ni nga jekkee ma ne ko damay sëy ndax boobu mbëggeel tënk na la dangay sëy yàlla weddi nga tasanteeg beneen góor nga ne góor gi moo baax nga toog fa di fa sëy yàlla tax tuur fa sa butit te doo fa am jàmm doo fa am salaam ndaxte yaa yey yuuxu dangaa sonn moo tax nga yuuxu waaye war a yuuxu ak ñoo bari ñu war a yuuxu ak ñoo bari waaye nit ñi nag du ku nekk moo mën li nga mën jàmbaar nga ku lay waxal na la wax ni jàmbaar nga ku sëykat nga ku sonn nga parce que man mënuma comprendre nga nekk ak sa jabar benn benn mbir laa meree jëkkëram nga nekk sa jabar avortement nu mu méttee man am naa deux avortement man deux avortement am naa ko avortement ni mu méttee nga toog sa jabar sa jabar avorté ba mu avorté nga war a toog ci wetam nga envoyé ko message ne ko damay dem soirée Momo Dieng yow yaay kan ak fan nga toj ana say mbokk ak avortement ni mu méttee jigéen jo avorté ñu war laa kirtaas yóbbu la hôpital kirtaas la dindi li sa biir ka metti da ngay sut da ngay wut ku la soutenir ku jàpp sa loxo pour nga mën a soulager wu ndax jigéen dafa metti xajut ci jigéen waaye man damay laajte ndax kii bi muy takk ndaxte bëgg na ko man bëgguma bës barke Seydina Mohamed billaahi wallaahi wal kitaab man maa nekk maam Ndiaye nit koo xam ne boo siiwee bëgguma doonal waykat bëgguma doonal tëkkatu sabar bëgguma doonal ko àdduna di topp bëgguma xam nga lu tax parce que tey boo sëyee ak ñoom yow yaay sonn après soo sëyee ak ñoom yow yaay am naqar boo sëyee ak ñoom yow yaay am góomu xol te sénégalais yi dañoo mën a juger jigéen man dégg naa lu ne dama ñibbi si sama kër dama dégg lu ne maam Ndiaye Savon dafa bëgg foo maam Ndiaye Savon dafa bëgg a taxawaalu maam Ndiaye Savon lu tax mu ñibbi seen kër ah jëkkëram dafa baax jëkkëram xale la sama jëkkër dafa baax dafa baax waaye borom matt moo xam la ca matt lalam borom matt moo xam la ca matt lalam duma mës a taxaw ci àdduna wax sama jëkkër wax bu ñaaw duma mës a taxaw ci àdduna wax sama jëkkër ni carrément nit ku bon la parce que benn jour bu dee baax wan na ma ko te tey musoon na ma takk ba ñu nekk man ak moom kon duma ko yàq ba ala ba ba àddunay tukkee ndax xam nga lu tax su ma gestoo xool sama doom yi duma toog di wax dara sama jëkkër waaye ndaxte dafa mën a yuuxu rek di yuuxu waaye sant leen yéen sénégalais te yéen jigéen ñi nga xam ne sëyagoo leen xale jigéen yi li ngeen gën a bëgg ci àddina mooy toog ci lal ñu muur la rek nga def nii wala nga def nii wala nga def nii matière yow ba nga koy def nii ñaa ngi lay commentaire ak di la dugalal ak di kontaan ci yow waaye demal nga xool la ngay fekk si góor moo nekk genre nit koo xam ne du ma ne dafa baadoola mais dafa gàtt xel xamal tax góor dafa gàtt xel dangay takk xale bu ndaw mu jekk mel nu la neex nekk ak yow un an deux ans trois ans sàppi na la leneen ngay bëgg a xooli pour lan loolu te yow kooku ba nga koy bëgg di ko takk ñu baree ngi taxawoon mais tey nekk naa ak moom quatre ans trois ans cinq ans sappi na ma ñun jigéen dañoo gore xamal tax dañoo gore ñun dañoo gore ndax ñun tey ñooy muñ waaye gis nga lu du dëgg du yàgg ba mu demee ba mënatul muñ dafa tas sëy bi parce que nag kaay may la benn góor benn góor rey la fukki góor suul la imaginel yow benn góor ngay nekkal mu rey la fukki góor taxaw suul la pour lan fu ngeen ko teg fu ngeen ko teg jigéen ñi defaraat leen seen toogaay lan mooy góor ku liggéeyul ci àdduna perte nga ma wax leen benn affaire gis nga jigéen juy liggéey tey laa leen wax lu dul dañ ci àddina loo xam ne da ngeen koy jàpp bu ngeen ko déggatee man mii maa ko wax gis nga jigéen juy sëy jigéen juy liggéey soo liggéeyee ba yàlla taral la ba nga am say million jëkkër doo bëgg a sëyal ci àddina da ngay sëy ak moom te loo bëgg loolu lay def xam nga fa laa ko teg parce que am nga lépp ñiy sëy nga xam ne amuñu dërëm respecté wuñ leen guddi respecté wuñ leen bëccëg ak góor da ngay sëy moom mu dëkk ci sa nopp naan la amoo foo jëm amoo foo jëm boo tasee amoo foo jëm say mbokk ñëpp kenn yorul dërëm say mbokk lii e ana yàlla ana yàlla ana yàlla ana yàlla sunu boroom yàlla gémmin gu mu xar def ci lekk def ci naan te yàlla du tëj buntu tëj tëj paranteer wàcc rido jigéen ñoo xam ne ñu ngi toog fii xam nga seen jëkkër yi lan la leen wax boo tasee amoo foo jëm seen waa kër lekkuñu naanuñu fii mooy sa jàmm bu yeboo nga toog fi ma lay mettital ba nga dee am na jigéen ñoo xam dañ leen di mettital ba ñu xëy gaañu ba xëy gaañu bu ko kenn nangu bu ko kenn nangu ku ci am sa jëkkër ju baax nag teel bu baax a baax ndax kuy bañ kuy saw kuy day ngay am jigéen góor ñëpp a yam góor ñëpp a yam ci àddina ñëpp a yam ku ci am sa jëkkër ju baax toogal nga sëy waaye mane la tas du gàcce tas du gàcce tas du gàcce ku am jëkkër ju bon bëñ bu méttee yam buddil sànni te boo buddee sànni booleel personnalité jigéen ju tas mën naa am milliardaire jigéen ju tas mën na am millionnaire jigéen mën na tas ñu mayoon ko ci ba muy nekk jànk cinq cent mille mu tas amaat jëkkër kooku may ko dix millions warugar jigéen du perte mais da ngay toog di muñ ba kañ sëy neex na de sëy neex na waaye ci kaw fa ngay sëy ñu jox la ca respecté la da gis jigéen joo xam ne day sëy ci kër kenn nawloowu ko kenn faalewu ko kenn respecté wu ko su waxee gorom gorom ne ko yaa fi bàyyi sa bopp sa bopp bu waxee jëkkëram jëkkëram ne ko yaa fi bàyyi sa bopp ku mu waxal ci kër gi nga ne ko yaa fi bàyyi sa bopp mu toog rek di muñ doon jàmbaari sëykat waaye sa doom bu màggee dalay teral eh ndaxte moo feeñ le am na ñoo xam ne lu ñuy dund buñ ko génnoon wax barke Serigne Touba àdduna bi tot ñun jigéen ñi ñoom ñun ñoo war a dëgërlu lan mooy góor lan mooy góor nañu dem liggéey je travaille qui paye ku liggéeyul perte nga. dama déglu sànq benn interview boo xam dañ ko jël dugal ko euh, bàjjanu natta la xaw ma tàntay natta mu ne dafa wax xale bu góor bi xale bu góor bi ne ko bu ngeen ma yóbboo ma dem fay commissaire bi mu gracier ma génne ma ndax am naa xaar te yéen amoo leen dara <laughs> nga toog di fa muñ. gis nga nag ma wax leen benn affaire gis nga lu lu lu am ca sëy ba feeñu woon na ca ngoro ga nuyoo woon na te ngoro ga dañ kaa fayul ndax man mënuma comprendre ñu indil la warugar xale bu góor bi woo seen waa kër saaga leen ay nday seen waa jël wargal bi man de boo ma leen wargal saaga suñu waa kër ma boole la ak warugar beeg seen waa kër sa papa sa yaay seen waa koñ quartier bi nga dëkk boole leen saaga leen ay nday jox la sa warugar lan la dafiy bañ nda lañ doon indil warugar xale bu góor bi woon na leen maltraité leen saaga leen ay nday nga boole waru gar beeg seen waa kër ak papa yi yaayam ak dëkk baak koñ baak fi mu dëkk yëpp saaga leen ay nday ndax duma ko delloo ndax wane naa ne warugar bi ñëpp xam ne indil nañ ma warugar xale bi jekk mel ni ko neex di jooy guddi di jooy bëccëg man na xale bu góor bi duma ko jugé parce que xamuma ko nit boo ko xamul doo ko jugé xamuma ko parce que interview xale bu jigéen bi rek lañu ñu ku góor ki ba tey génnul ak loo mënti génn nga wax ko daanu nga parce que jabar dañ koy teral jabar dañ koy suturaal jabar dañ koy sagal yow dangay ngay baali saw bis ngay dund sooy baali jëndalal sa jabar yére nga ne ko jàppal sa loxo ngeen ñëw dem ngeen ànd yéen ñaar dem fu leen neex taxawaayu dem fu leen saf ngeen dem baali ba heure bu la neex nga dëppaat mais lan mooy sëy boobu lan mooy sëy ba man musuma dund loolu man moom damaa part personnel man musuma dund ba parce que man mii xale laa waaye doom laa man sama bàjjan ma yar te damaa daggal mbootu mboot ma ak mbootu roggante ma wax fa dëgg yàlla loolu duma ko dund man ndax man manqué nekkul ci man ñàkk fayda nekkul ci man ñàkk fayda googu nekkul ci man nga lal sa lal ba mu jekk ku góor ki ñëw romb la dem suwaare ba fajar nga doog a ñëwaat nga defar sa ndékki du ko ndékki nga defar sa du ko reer pour lan loolu nga toog di sëy naan damay toog rek di xaar yàlla damay jaamu yàlla damay jaamu yàlla ba kañ ba kañ ba kañ tey sénégalais yépp seen xool dafa naqari sëy yëpp a metti nag bu ndaxte rek ngeen gis am na ñeneen ñoo xam ni ñoo ngi sëy nekk ci sëw bis bi di dund lu metti ragal a génn wax ndate moo wax fi mu teewoon nii moo tax ñu jël lépp naan ndate ñi yërëm ndate ñi dugal ndate mais nañ ci jigéen ñoo xam ne li ñuy dund man léeg-léeg damay toog sama place ba jouru korité rek moo ci mujj jouru korité moo ci mujj visitant moo ma woo ne ma allo ma ne ko allo mu ne ma sa buntu kër am na ku fi gaare wàcce ay oto wàcce lu ne ma ne ko tettal ko sama place mu ñëw xale bu jigéen bi ñëw sama place mi ngi yoor liiru deux mois Louga la dëkk liiru deux mois la yor Louga la dëkk xale bu jigéen bi ñëw toog ma ne ko ça va noo def loo bëggoon rek mu sumb ay longoñam di jooy ma ko soxna si lan ngay jooy parce que boobu énervé naa maa ngi liggéey ci événement bi ba gaañu mu ñëw sëmbal ma ay jooy ma ne ko soxna si lan ngay jooy mu ne ma sama jëkkër day màndi bu ñëwee daf may jàpp dóor ma ba yeew ma te damaa yor liir te fi mu ne daf maa dóor ma ne ko an yaay mu ne ma sama yaay day sëy woo naa ko mu ne ma naa toog muñ te lii mënatuma ko muñ ma ne ko an seen mu ne ma sama maam nee na du ma dugg ci kër gi ma ne ko an sa papa mu ne ma xaw ma sama papa ma ne ko yow ana say mbokk mu ne ma man aw ma benn mbokk bu ma mën a dimbali te xale bu góor bi loolu la dëkkal ci sama nopp amoo foo jëm yaayam mi ngi ci kër gi papaam mi ngi ci kër gi waaye day dem ba xaaj guddi ñëw jàpp ma dóor ma ba ma woo sama yaay téléphone sama yaay ak may seetaan bu dee li may wax du dëgg barke Seydina Mouhamed sama séjour bi yàlla bu ma ko yeggale ma woo sama yaay téléphone allo yaay mu ma ah ma ne am benn xale bu jigéen fi ñëw te man dama dem tëdd sama kër xale bu jigéen bi woo expliqué sama yaay sama yaay ne ma yàpp ko ci oto dugal ko ci oto sambaar bi nga def ko sa ay bagage mu ñëw ci biir kër gi mu ñëw sungal la sëmm ay rongoñam di jooy ci sama yaay expliqué sama yaay jàpp doom ji sang ba mu set boot ne ko demal nga sangu ji sangoom set téye ko ci kër gi xale bu jigéen bi ñeenti kii lañ fa def un mois la fa def jëkkër ji musu ko woo seen waa kër musu ko woo un mois ñu jékki-jékki saa jëkkër ji woo ko xaw ma lu mu wax xale bu jigéen bi lu mu koo traumatisé xaw ma lu mu wax xale bu jigéen xale xale bu jigéen bi àndatul ak sagoor ne damay ñibbi ma ne ko ma chérie mu ne ma ma ne ko góor du avenir yow bi ngay ñëw fii ki dee mu naa ma ko gis nga sa yaram bi nu mu mel nga yor liir bu ndaw bii sa jëkkër ji dóor la ba di la bërëng tey nga bëgg a dem ñibbi nii tee nga toog ba ci kanam kii dalaa namm moo tax muy taxaw di la wax lu nekk pour nga ñëw te yow tamit namm nga ko parce que nii nga jugee ne dafa may ñibbi ah maa chérie mbaa boo demee doo am naqar mu ne ma noonu maa ngi lay sant di la gërëm ndax bi ma ñëwee mënoon nga ma bañ a dalal yaa ngi dégg mu ngi may bu dee yaa ngi may seetaan barke Seydina Muhammad ba ma ñëwee dalal nga ma maa ngi lay sant di la gërëm maam Ndiaye maa ngi lay sant di la gërëm affaire yooyu wax a wax a wax a wax a wax ba sonn ma ne ko kon chéri mu ne ma ah ma ne ko kaay ma jox la paas nga yëg ma yëkkati ñeenti junni jox xale bu jigéen bi jox sama chauffeur mu yóbbu ko ba boo marisé mu jël oto xale bu jigéen bi boo la ma gëj a woo ci laako ko gëj a gis ci laa ko gën a dégg te xale bu jigéen bi xamuma lu dul ci aadama ak awa ci internet bi la ma dégg rek am problème ñëw ma ne ko man awuma fu ma la dugal sama yaay ne ma defal nànk woo ma ma woo sama yaay sama yaay sama yaay ne ko mu ñëw ci kër gi ñu téye ko xoolal xale bu jigéen bi euh, jëkkër ji waxaat na ko ba xale bu jigéen dem na ñibbi Louga mooy war a voyage waat njallu njaaye ngi toog ak kan ak jàmm sama benn xarit bu jóge fenn ba may voyage sama voyage bi jour bi may voyage yi mardi am beneen xale bu jigéen bu jugee beneen dëkk indi bagage di jooy lan nga def mu ne ma sama jëkkër ma dóor ba ma tëdd ma ne ko barke Seydina Muhammad fii doo fi toog jox ko ñaari junni na ko paasal nga ñibbi xamal tax ma ne ko doo fi toog barke démb daa am ko ñëw ne ma sama jëkkër ma dóor ma jël ko teg ko di ko xeexle xale bu jigéen bi kay wan ma taat bu ñuul ko ne ma damay ñibbi sama jëkkër wax na ma ma ñibbi ma ne ko soxna si mu ne ma ah ma ko fii doo fi toog dugal nga sangu ba set mu ne ma ah ma ne ko nga jël ñaari junni yi nga paas nga ñibbi waat fi nga dëkk awma fu ma la def te damay voyage ndax tey koo ci xeexal te xale bu jigéen bi bu réglé woon dama koy xeexle néew ma ko mu tas mais dama koy xeexle ba jëkkëram respecté ko ndax jigéen bu la sa jëkkër toroxalee mbaa mu def la yenn yi danga koy bul tas faj ko ba boo ñëwatee mu respecté la xam nga lan mooy toog lan mooy faj bi dangay ñibbi sa kër boo amul foo jëm nga am nga sa benn kër xarit nga dem toog fa faj li nga bëgg a faj yépp am sa fulla am sa fayda am sa persona bu la woowee nga teg ko lu metti ba boo ñëwaatee mu respecté la na ko respecté jigéen bu la sa jëkkër tooñee dangay dem nga toog seen kër kilifa yi nañu nangu loolu ba nga faj li nga bëgg a faj kenn tasloowul kenn ndax kenn du na kenn tasal baat boobu dafa diis yàlla nee na kuy tasloo doomu aadama rek yow koroog yombal xiyaam danga koy layoog sunu borom kenn du ne kenn tasal waaye góor boo nekkee ak moom xamul sa valeur demal nga toog seen kër ba mu xam sa valeur bul tas toogal deux mois am sa fulla am sa fayda am sa personnalité di sinab di ko dugal mu lay gis ngay jekk su la waxee li nga ne ko lii fi amoon déedéet doy na te or ko yow sa jëkkër rek nga bëgg mais lu mu wax ne ko bëgguma lu mu wax ne ko doy na da lay proposé lu ne ci àddina nga ne ko doy na boo ñëwaatee barke Serigne Touba Mbacke da lay respecté teel ci loxoy dëgër waaye yow da ngay ñibbi seen kër même pas mois sa yaay di la xeex la sa baay di la xeex la nga jékki-jékki saay rek mel ni dañ laa rayal sa kaaw ndax bëgg nga ñibbi ci sa jëkkër te ñoom lañ lay dawal ñoom ñoo ko xam dañoo bëgg nga toog nga réglé ndax jigéen du yàqu te jigéen du futi jigéen bu sonnee rek lay futti waaye boo demee seen naan say périantine jekkaat ci sa bopp mel nu la meex mu xool la ba xam ni moom carrément ka mu dàqoon moo melaat nii su la teewaatee dalay respecté mais sénégalais yi ñoo naïf dañoo bëgg góor bëggu góor bëgg góor bëgg góor bëgg góor ba xamuñu fan la ñuy taxaw pour ñoom déjà génn nga sa kër sa jëkkër mi ngi yabaat yeneen jigéen di dugal waaye yow yaa xam yabal ku la neex dugalal 24 heures sur 24 pax moo xamul luñ ko sëqee pax moo xamul luñ ko gasee sëqal li nga mën a sëq te bàyyi sa morom mu sëq. <laughs> Marie Talla maa ngi direct pour la sama xol bay jeex Marie Talla barki Seydina xamul luñ ko gasee sëqal li nga mën a sëq bàyyi sa morom mu sëq waaye daal comme sama jëkkër daal. génn naa kër ga rek oh, mu ngi dugal jigéen ñi rek damay dem gérer waat sama sëy parce que mi ngi dugal jigéen ñi di génn ko dugal moom la Ndeye Ndiaye joué ci ci ci théâtre di jëkkër ji la gis muy dugal jigéen mu dem toogaat di sëy pour bëgg a toogaat pour lan loolu eh dugalal Beyoncé dugalal ku la neex ci àdduna dugalal Sénégal jamaa fou dignité ak personnalité nit moo koy sàqul boppam dignité ñi da koy sàqul man de man man man maam Ndiaye Savon parce que Seydina Mohamed man ku ma sëyal danga may respecté xam nga tax danga may respecté di nga lekk di nga naan te man maa nekk nit koo xam ne su may sëy lu ma romb ci àddina comme yéen sëy nii da ngeen di toog man man man man musuma laaj sama jëkkër man ne ko suba la tabaski barke Seydina Mohamed bi ma amulee dara nekk ci marché bi sama première sëy musul tabaski musul jot wala korité ba ma ne sama jëkkër suba la tabaski duma la tal maa ngi ci marché bi di liggéey bëgg lu ma amal sama bopp man xawuma tabaski ak ay korité sa dëkk di compter xaas ni la jox taluma la balaa ngaa defal samay doom ma xotti sama doom yëpp balaa nga defaral ma defaral lépp balaa ngaa maa sañseel ma sañseel sama bopp ba pare sañseel la yow man sama jëkkër bu ma koy xottil comme tabaski nii benn jasneer yàlla tare man trois jasneer laay jënd ñëw bu ko ci ñawkat dangay solu suba solu ngoon lendemain tabaski dangay solu te man xaaruma dara ci jëkkër barke Seydina Mouhamed man maam Ndiaye Savon ci internet laa nekk di wax te looy wax lu nekk na ko xam parce que ëllëg dañ koy rappelé waat man sama jëkkër trois jasneer da nga bi ngay jullee bokkut ak bi ngay sol ngoon lendemain tabaski da ngay solaat jasneer te duma la laaj yow dërëm man xam nga la laa soxla góor gu ma respecté man jox ma cër jox ma xam man may kan ma fees sama place man dama baax mais man comme nii ma toogee nii xam nga lu ma fixé jamono ji sama liggéey àdduna du yàgg na ba ma génn di directal sama jëkkër di ko wax n'importe quoi parce que xam nga lu tax moo jur Serigne Fallou moo jur abi te du ma toog di ñu yàq sama jëkkër ndax su ma ko yàq su ma ko yàqee man nit ñu war nañoo tiit ci man mais nag ku ci nekk sa lal yow yaa xam la sa màttalal yow yaa lijjanti sa lan mooy sa lal jigéen day fajal boppam jigéen day am personnalité te ma wax leen ndaxte ak ak Mario Mbaye mii dañoo bëggante dañoo bëggante te Mario May lii ko àdduna bi lii ko àdduna bi euh, sëf nii mën na ko changé te bu ngeen ko xoolee bañul jabaram jabaram bañul ndate bañul jëkkëram kon nañ ci tey ñu def ci nànk dañ doon sëy te ñoom ñaar dañoo bëggante ku góor ki dafa xamul àddina te moom la waykat bi way ne àdduna boo ci tollee dangay rajaxu di dajaxu naan nu ma neex laay doxee te ci jamono yooyu la toll waaye lii mën na ko yay